ngeen jot suñu vidéo nag foo di abonné itam képp kuy ab julit te jàpp ni wanu nasiru min alqurani ma huwa shifa alquran moo ko wax julit dafay saafarawoo ci lislaam dafay saafara woo ci alquran di saafara woo ci pas-pasam maa ngi diggal ñëpp bépp julit képp koo xam ne boroom kër nga nga uuf sa njaboot maa ngi lay ñaan boo mokkalee ayatul kursi yi nanga ci jàng 66 mooy li limu allahu boo ñëwee ba ci wala yauduhu xifzuhuma nga baamu ko 66 fois tifle ko ci kaas kaasu verre fexe ba sa njaboot yépp naan ci nga ñaan borom bi nga xam ne kattanam moo dugal moo perturbé adduna bi ñu am pétrole ñu wax naan ñooy ñooy ñu am puissance li naan la la grande puissance de monde yàlla rek la ki nga xam ne moo dévier monde bi jamono bii nii kooka sekkareem sirrom mbóotam yërmandeem mi ngi ci walaa yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyul azim ñu def ko kenn ku ne jox ko sa njaboot mu barkeeloo ko ñu boole ko nag ak wéeruwaale ci docteur yi mooy di sàmmoonte ak set gi ak beru gi ak bañ di jaxasoo ci mbooloo yi dimbilee ko suñ mun taqaa ni mu ko waxee woon ngir mën a xeet li suñu bopp ngir mën a xeet li yeneen doomu yi la ca des nag mooy dafa am loo xam ni dafa am benn borom xam-xam wax ni daa am loo xam ni bu ko lislaam nungoo it ngor du ko nungu loolu nag wax ju xóot la aw cax la it am na loo xam ne bu ko lislaam nungu it ngor du ko nungu mooy alquran daf ni waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu yéen ñëpp bokk leen jàpp ci génn buum te bu leen xaajali ko julit ñëpp nag buñ maasee joy ci benn côté ixsaan dal rafetal dalay may nga joy ànd ak ñoom te du yàq sa diine kon nag maa ngi ñaan ñëpp Euh, yàlla na tawat ji génn réew mi na gën a gaawee jullit ñëpp yàlla na am jàmm maa ngi am ñeewant ci képp kuy jullit wala képp sax kuy chrétien koo mën a doon tey sénégalais rek ak foo mën na ci àddina bi maa ngi leen masawu te di la ñeewantu di la wax ni la képp kuy kilifa diine ñu di la diglu rek ngay déplacé wu di wax ak nit ñi man fan laa dem ci àddina bi tey lii tàbbi ci doomu aadama yi yow sa xol ñox ñoxe na nooy def ba muccal ba musal leen kon nag yàlla ci ñëpp mucc maa ngi koy ñaan ci barkeb ki ma amul ku dul moom muy Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou de ku fonkoon sarax la daana toog ba yàgg mu daal dina réew mépp génn sarax te su ko daan wax de dafay am lu mu gis rek su ko ñëpp dafay jàmm na ñooy kon nag président ak nu mu mën a demee defal ko sénégalais yëpp yàlla delloo feebar bi ginnaaw jàmm dellusiwaat ci réew mi nit ci delluwaat seen i activité liggéey jàmm na ñooy ku nekk gëmaat na nga gëmoon gis nga docteur bi ni la boo demee ca mbooloo ma da nga wàll ñii nga toog ci sa kër téewal sab sëriñ def sëriñ mm-hmm. téewal sab sëriñ dëggu téewal sab sëriñ am baatin baatin ñu ngi koy xamee ci ngay daw ak nit ñi ku dul daw ak nit dara baatin mi ngi tàmbale ci ngay daw ak doomu aadama yi ragal ak doomu aadama yi ragal fitna ci réew mi ragal lépp luy déstabiliser doomu aadama yi mm-hmm. foofu la xam-xam tàmbalee fa la baatin tàmbalee fa la ragal yàlla tàmbalee ñim yàllaa ngi tàmbali ci ngay lor doomu aadama te yëgoon yaa ngi koy lor ndax ak bu dee tàbbi ci yow te yëguloo ko da ngaa ñemee yàlla kon bàyyi leen ci xel yéen ñi xam te war a xamle dee leen def ci bopp nit ñi xamul ñu xam la ci des nag lii nag man la engagé te man la concerné man mii élément bi Serigne bii man la concerné la concerné yoonu murit sa sama jëmm ji dafa tabbi jëmmi Serigne Cheikh ji Serigne Cheikh tabbi jëmmi Serigne Mountakha ji loolu dama koy bàyyi ak jëmmam ja waaye lii man la engagé parce que am naa droit rek di di di di dajale mbooloo ci àddina bi di wax ak ñoom ñu may diglu la may wax ak ñoom nag lii war na caa mën a bokk loolu tax ma def lii ma def nii